rahmatullahi taala wa barakaatu bokki di li yi <clears throat> noo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen bala di leen ko baal di am mbégte di ñëw ci jataay bi nga xam ne yéen a ngi ko doon topp ci annonce bi mu di jataay leeralante wala leeral li nga xam ne moo nekk ci ngir yi nga xam ne <clears throat> moo attiwu ci lislaam muy xawla mazahibul arbaa loolu nag waxoon nañ leen ne danañ ci ànd ak sëriñ Abdou Lahad Sané ginnaaw bu ngeen déggee ay jaar-jaaram ak fi nga xam ne fii la mujj si fii ci Touba ñu fas yéene ànd ak yéen nag ci jàngale walla leeral déggin wi nga xam ne am na ko ci baat bi jëkk mooy mazhab ci ñu bari di ko wax am ngir sëñ Abdou ginnaaw bu ñu la bàyyee nga nuyoo ak bokki taalibe yi ba noppi ak bokki jullit yi suñu laaj bu njëkk mooy lan mooy jëmmi mazhab ba noppi loolu nag bokk yi émission bi day wéy di ànd ak yéen incha allahu rabbi danañ leen ubbil ay numéro téléphone yoo xam ne képp ku ci am question mën nga ko cee jaarale incha allahu rabbi émission yii di ñëw sëñ Abdou dana la ci man di tontu ngir njëkkante ak waxtu wi sëñ Abdou ginnaaw bu ñu la nuyoo ñoo ngi la fekk fii ci daara ji bëggoon nañ nga nuyoo ak téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di la seetaan te di ñu seetaan ci réew mi ak ci bitim réew bu ñu noppee sunu laaj bu njëkk tey jii mooy lan mooy mazhab baatu mazhab ba tax àdduna bépp ko wax ñu ne ci ngirum nàngam na bëggoon nañ daal mu leer ci boppu nit ñi lan mooy jëmmi mazhab ba noppi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci bi ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam bu sell eh, te it di am mbégte ci dajeeg yéen ci jataay yu mel nii di jataayu xam-xam ci jataay yoo xam ni jataayu fàttalante la jataayu leeralante la waaye jataayu dundal islaam la ci ya nga xam ni ñooy màndargaal islaam depuis jamono bu yàgg ba tey te mu doon ngir yi nga xam ni ñooy ngiri ahli sunna wal te ñu dëppoo ca te ñu nekk it ci biir lislaam eh, di am mbégte it di amale jataay yii ci ba ànd kook sunuy mbokki taalibe ya nga xam ni ñoo nekk ci eh, Lamp Fall FM ak ña nga xam ni ñoo nekk ci Salaami TV eh, mu doon jataay yoo xam ni comme niñ ko waxee woon ci yëgle ga rek ay calale lay doon yoo xam ni dana làmboo lu baree baree bari ci loo xam ni képp ku xam-xam ñor eh, dana la soxal ndax dana la leeralal yoon woo xam ni eh, amaana yàgg nga mébét xam yoon woowa la ca nekk ci ay màndarga ba nga mën caa niitoo mën a teg ci sa tànk ci ay taxawaay yoo xam ni taxawaay yu leer la te aju ci sunu diine ji bu fekkee ni eh, laaj bi sunu mbokk laaj di Sëriñ Fallou Gala Silla ci lan mooy madhab eh, madhab te ñu naan ko ngir ci làkk wolof eh, baat bi moom du baat bu tumuraanke ndax ci zahaba la jóge yazhabu mazhaban zahaba nag mooy dem na yazhabu dana dem mazhaban demukaay wala nga ne jëmukaay kon buñ doon tënk baatu mazhab manees na ne al mazhab mooy jëmukaay ku nekk bu ñu dajale woon ci barab tasaaroo ca barab ba ñiy jublu penku ndax fa ñu dëkk penku la féete kon foofa mooy seen madhab ñi jublu soowu ndax fa ñu dëkk soowu la féete kon foofa ñu jublu mooy seen madhab mooy seen jëmukaay wala it nit ku nekk nekk sa kër eh, mu am daje joo daje boo xam ni eh, ñu ngi koy amale ci jumaay Tuubaa ñëpp ñuy jóge bët gànnaar ñiy jóge bët saalum ñuy jóge penku ñuy jóge soowu ñëpp jublu ji fa nga xam ni mooy jumaa ja kon ci jamono yañ fay jublu manees na ne foofa mooy seen jëmukaay loola ci wàllu luxa la ndax taarif mooy définition xamle luy dara luy mbir mii ni ko boroom xam-xam yi aadawoo di defe mooy danañ la xamal baat bi ci luxa bu ñu paree xamal la ko ci istilaax istilaax nag saa su ne nag mooy doon lu bees Eh, ndax luxa daf fee yàgg làkk bi daf fee yàgg waaye istilaax mooy ñëw fekk fi làkk bi yenn saay na làkk na ab làkk tudde mbir istilaax day ñëw fekk si ko fa yenn saay yi istilaax day ñëw am lu mu jël menn maanaa moo xam ni da koy jël ca na làkk wa tudde loola jëfandikoo ko dolli ci yeneeni maanaa ak yeneeni charte ak yeneeni tënk ngir mu doon maanaam istilaaxam kon madhab noona ñu ko waxe léegi te mooy jëmukaay loola ci wàllu luxa la waaye maanaam luxa mi it ba tey eh, ci istilaax ña nga xam ni ñooy fuqahaa yi dañoo àbb maanaam moomu wala àbb benn pàcc boo xam ni pàcc bu yaatu la ci maanaam is maanaam luxa mm-hmm. jëfandikoo ko ci seenu istilaax istilaax nag bari nañu koy euh, dégg ci téere yi di ko dégg ci jàngkat yi bu ñu la nee istilaax la ca jublu rek mooy turlawu amul woon ba mu amee euh, ña nga xam ni ci seeni loxo la ame ñu xool nañu koy tudde ne nañ ko tudde nàngam mm-hmm. am nay jamono téléphone amul woon ka ko créé wala ña ko créé bañ ko créé mm-hmm. ah ñoo xool ne nañu ko tudde téléphone. am na ay jamono caméra amul woon. ña ko créé ba ñu ko créé ñu toog xool ni kat lii nañu ko tuddee caméra kon caméra eh, istilaax la istilaax la ci jumtuwaay wii nga xam ni danañ ca portale waaye danañ ca jële ay jëmm yoo xam ni jëmm yuy yëngatu la kon eh, lu mel noonu lañuy tuddee al istilaax kon fuqaha u it eh, ba madahib amee dañu gendeeku maanaam luxa wi ma ca ne àbb ci lu baree bari dal di tudde madhab eh, ne madhab xaqiqatun urfiyatun fi ma dahaba ilayhi imaamun min al aimma min al ahkaami nee nañu madhab aw tur la tur woo xam ni Eh, dafa am ci ñu ñu ko xame ñooñu ñu ko xamee nag xam ne ca ñoom la tur woowa juddoo dañ caa jublu eh, bépp masala boo xam ni kenn ci imaam yi eh, dem na ca tànn na ko ci xilaaf bu ca bu bu amoon ci digganteem ak yeneeni imaam wala xilaaf bu amoon ca imaam ya ko jiitu woon mujj mujtahid bi ñëw tànn ci la nga xam ni moo gën a fés fa moom moo gën a dëgër fa moom eh, loola kon mu tànn mooy madhabam kon madhab mooy gis-gis woo xam ni kenn da koo am ci imaam ya nga xam ni am nañu marta bay mën a ijtihaad bu nee na ijtihaad nag mooy koo xam ni xam-xamam yegg na ci dayoy man di tibb ci alquran directement di tibbi ci xadiisu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam directement eh, di càmbar masail ya nga xam ni ijmaa da caa am ak dëppoo da caa am ak yawute am ak ya nga xam ni manees na caa xiyaas ak ya nga xam ni sañee su saa xiyaas kon usul yooya muy ponk yooya nga xam ni mbooleem luy fiq ci lislaam mbooleem luy àtte ca ponk yooya lañu sukkandiku ngir mën a seppi lañu ca soxla ba lu xew ci jamono ñu mën a wax ni lii mooy attey eh, lislaam ci mbir mii te fekk yenn saay danga fekk atte yooyu alquran waxu ko sunna yonent bi waxu ko waaye mujtahiduun yooya nga xam ni ñooy imaam yu mag ya dégg ga ñu dégg alquran ak ga ñu dégg sunna xam nga ñu xam jubluwaayu sharia ci lépp loo xam ni mi ngi koy tëral ca lañu sukkandiku ba mën a eh, génneel seen bopp ay masail yoo xam ni Eh, dañ koy niitoo ci alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak dëppoo ya nga xam ni daf leen jiitu woon kon masail ijtihaadiya yooya yooya lay mazhab di am doo mën a wax ni mazhabu Malik mooy ni julli juróom farata la déedéet ndax loola du masala ijtihaadiya loola du masala góor góorlu xalaatu kenn amu ca solo waaye jullit ñëpp dañ caa dëppoo mënuloo wax ni mazhabu Malik Eh, mooy ni eh, ci biir julli dees cay jàng fatiha wala dees cay jàng alquran ndax loolu ijmaa la ñépp dëppoo ni julli warees na caa jàng eh, alquran donte wuute nañu ca la ngay jàng ci alquran ba xam fatiha farata la ci wala fatiha du ca farata loola am na wuute bu ñu yeggee nag ci jàngale fatiha ci biir julli bu boobaa manees na ne madhabu malik mooy ni fatiha farata la ci julli waaye madhabu abu xanifa mooy ni njàngum fatiha du farata ci julli bu ñu yeggee ci lu mel ni basmala it ku ci nekk bu boobaa dangay am sa madhabu bopp nga ne madhabu malik mooy ni jàng basmala fara eh, du du dañ koo njàngum fatiha ci biir julli farata madhab shafii mooy ni basmala farata la des ko war biral ci julli gu ñuy biral yelu ko ci julli gu ñuy yelu madhab ahmad ibnu hanbal mooy ni njàngum faati njàngum basma la farata la waaye dees koy yelu ci julli gu ñuy biral yelu ko it ci julli gu ñuy yelu kon ci yu mel noonu buñ ca eggee ñu xam ni eh, kon eh, yooya mooy madhab waaye ya nga xam ni ijmaa da caa am ne asaka dafa war weeru koor woor ko dafa war julli juróom dafa war haj màkka dafa war loola du madhabu kenn loola ijmaa la ci jullit ñëpp leer na ci walla boog am na ci lu leer ci ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy topp ci ni nga ñu indilaate jëmmi mazhab mooy lan ak yan dellukaay laan ñu ma dégg ci sa biir wax day mel ne mooy euh, fi nit ñi jëm daal kenn ku ne yoon wa nga ko jaare jëm ca fo loola mooy sa mazhab mu mel ne nag bu ñu demee ba ci biir dana am ay yoon yu bari ndax bu doon ne dañoo jëm si ci jumaay Tuubaa ka jóge Daaru Xuddoos jëm si fa masaabam la jaar waaye ka jóge surra jëm si ci it dafa am wet gu mu jaare ni ku jóge Mbàkke jëm si ci foofa ginnaaw boo xamante ni bi sant nañ la gërëm la incha allahu rabbi ci beneen tomb bi nga xam ne moo ngi ñëw ñu xam ñaata mazhab moo am waaye incha allah dañuy jox rendez-vous ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci beneen numéro incha allahu rabbi mu suñu deuxième numéro ci li nga xamante ni mooy jataayu laa euh, laabirante ci ñi nga xam ne moo nekk ci biir masa bi kon moo bàyyi la nga tàggoo ak bokki auditeurs kon euh, mbokk yi comme ni ko suñu mbokk waxee suñ fàllu sil la euh, loolu ñu tënk mooy madhab gannaaw boo xamee ni madhab leer na incha allah ci jataay ya ca topp danañu fëggaat yeneen buntu woo xam ne day nekk rek ci waaru bii di waaruma al madahib al arbaa wala ci waarub émission xawla al madahib al arbaa mm-hmm. incha allah ñu ngi leen di jox dig daje ci suñu ñaareelu tomb ci lii nga xam ni mooy seen émission xawla al madahib al arbaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.